jaajëfaleen bu baax waxtu bu baax wee jot ñu wax la bonne heure ci kàllaamay tubaab jukki leen xibaar yi ñuy taataan ci subaa léegi mbokk yi asalaamaaleykum li gën ci boppu xibaar yi bëccëg gu lenn du yëngu ñuy wax journée morte loolee nag waa aar sunu élection doon ko woote ni ki tey ndax am na suivi maanaam topp ndal ci boobu lépp diggal lu ci mën a am laaj ba wute na ci ñenn ñi nga xamante ñoom ñoo di kon askan wi ñu ci dajeel ci tont yoo wuute na bokk ndax ñu ci ëpp jàpp nañ ni tal nañ lu ñu yóbbu ca njaboot ga lu dul xëy banki yoxoo daañ ci ñëw ci jotu ay xibaar yi dañ ci àddu loi d'amnistie jëmale ko ca assemblée nationale kaddu yi njiitu réew mi ni ki démb ca jam ñaajo ngir nag neenal ak it euh, maanaam nii na lépp lu jëmoon ci ay toppe maanaam ay fee jëm ci atum deux mille vingt ans deux mille vingt quatre lu ni mel loolee bokk na ci li nga xamante kon njiitu réew mi jukki ni ko démb ba muy tëj ndar képp ubbitee fu ko dialogue bi foofu la ca jam ñaajo dana ci bokk ci xibaax yi cax ci amnistie boobee jot ñu euh, lëj mbëj génn waat kàggu yi def ca euh, yërte suñuy gët lam amnistie boobee fa mu jugee ak jamono ji kan moo ca njëkk am ab amnistie jàpp nañ ne moom Mamadou Dia bokk na ci yi nga xamante ci wàllum politique taarix mu ne su ko cee fàtte président Coach Sambou Biagui jël na kàggu ya jukkil ñi ci lenn caas lëf dañ ko teewlu. dañ ko jeexaleeg wàllum lii di kon soxal li nga xamante moom moo ñeel euh, gaz bi jamono ji ñi nga xamante ñi ngi ci marché yi gis nañ ne jafe-jafe la ngir ñu mën koo am am satu gànno nag xëyoon na solowu dàllam dem ca fële nga xamante moom moo di kon jaba xool ndax gaz boobee lan moo tax tey jii kenn mënul kos wala taal birket ngir mën a togg dara gaz bokk ci li ñu yittewoo yeneen ci ponk buñ ko ci njàmbasee faram fàcc ko mooy buur bi de jutee ci kanam ngeen ànd ak man ma yàttali jokko yi YouTube ak Facebook bi moo xam xibaar yi ci yàttal bokk na ci bëccëg yi nga xamante ni daal euh, dañ ko woote ñoom waa aar euh, sunu élection ngir nag lenn dara ba ñu yëngu ñu wax journée morte ni ki tey ci talaata ji loolee nag ñu ci ëpp ci askan wi dafa mel ne ab nopp tànqamlu lañ ko def ñenn ñi xëy nañ wuti jib dépense ndax jàpp nañ ne nag bala nga naan naan ne fa am na ñu ëpp ci ñoom seen loxo jot seen ginnaaw kon fa laa budd ñu jug xëy ñaq ji dara lees mën a yóbbu ci njaboot gi Euh, Mansour Diassé Boubacar Ibrahima Diagne ngir woon ne seen ñàkk ànd ci toxalum élection yi ñu jàppale àndal ak suñu charte ndeyu réew organisation bu ñuy duppee aar suñuy élection dañoo jël ndogal talaata yem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bés boo xam ne amul njaay amul njënd waaye li ni mel daa mel ni sénégalais yi àndum ceeg ñoom. ñu ngi naan ville morte. waaw fu mu nekk nii Sénégal métti na métti goo xamante ne ville morte mënu fee am da dafa am ñoo xamante ne. dañuy liggéey di di di di dépensoo ville morte boo ne yow boo toogee sa kër doo nekki doo añ doo reer boo loolu ndax mën na ne journée ville morte ndogal bi gën ngir bile xeex ki xam ne li ni mel nag di xali bu góor bile li si des ñu ngi fii suba ngoon mu ngi toog fii liggéey amul parce que yi élection bi ñu rapporte élection bi ah, en tout cas liggéey amatul parce que kenn wóolul kenn su fekkee suba man fees ginnaaw suba man kenn du la jël yóbbu si kerangu nga liggéey ak moom parce que su fekkee jàmm am na ku nekk day woolu moroom parce que di ville morte amee ñu pop ñu kii pauvre yi ñooy sonn yu bëri jëfewuñu li ndax yëguñu ko bu ñu sukkandekoo ci kii di Yoro Camara. non yëguma ko ci yéen laa ko yëgee waaw ci yéen laa ko yëgee ndax dégluwuma journal xaw ma luy passé journée bi moo tax yëguma ko. initiative bi de nag daa mel ni lu ëpp ci Sénégalais yi jëfewuñu ko ndax li ñu xamle mooy yëgul li ni ma kon di euh, bëccëg ak ñuy wax journée morte maanam xëy banque yoxo ñu bëri nag ñoom daanaka euh, kon tànk xam lu nañ lu nu mel euh, ci xibaar yi manqué ju ñu sànq ci njëlbeen bokk na ci loi d'amnistie bi nga xamante naan du yàgg dara dañ ko yóbbu ci assemblée nationale di pencum ndaw réew mi muy xabaar yoo xam ne nag mu ngi soxeekoo ci njiitalu càmm ji di prison de la république ni ki démb ca jam ñaajo ginnaaw ba ñuy ubbitee fukk lii di waxtaan wi ñu sumb ngir nag ëngëmloo ko ci diiru kon ñaari fan ni tey sax la waruñ ko war a ndar képp

ngir jàmm ak dal fii ci suñu réew damaa jël dogal gannaaw àllarba ci conseil des ministres bu ñu ko waxtaanee ba pare jël benn projet de loi bu amnistie jébbal ko ñii di assemblée nationale ngir xeexoo yi nga xam ne amoon na fi jàpp 2021

xew-xew yi nga xam jot na fi xew ndax fàtte xaju fi faat geeg euh, toroxal geeg buntu xatal geeg saccage yàq yi ak lépp li nga xam te moo di xeetu ñaawteef ak njaboot gi sa ngéemu ci lu mel waree su ko bàyyi noonu mu nekk loo xamante ni desu ko daan ñuy wax impuni euh, loolu nag kon jàpp na ne ñoom ànduñ ci bopp lépp loi bi nga xam dañ koo bëgga def ci wàllum kon euh, amnistie ci lu ni mel sax dañ ciy des ndax amnistie voilà bu dañu dugaat ci kàggu yi lañ bañ ko xool dëgg-dëgg mbir yi fan ko indi waaye it lan lañ ko euh, dara jëlee suñu charte mi wala bokk constitution bu Sénégal nee nañ xët ba boo ko ubbee juróom benn fukk ak juróom ñaar la di article 67 bokk na ci li nga xamante ni waajalees na ko ci charte réew mi loolee nag bokk na ci li nga xamante ni daal euh, njiitu mi moom tamit am na li nga xamante moom moo di sañ-sañ mu ci am donte bokkul ak grâce ba nga xam ne yenn saakat am ñu ko ko xaw a euh, jaawale euh, grace day sañ-sañ boo xamee tamit loolu it njiitu réew mi moo ko amal boppam ngir jéggal ñi nga xamante ni xëy na seenu daan àgg na fa mu àgg lu ci mën di am daal am na ci ñoo xamante ni nii euh, xëy na euh, ngir euh, far seeni ko ñaawteef dana nekk loo xamante ni dafa am jaarin wuñ koy jaarale rawatin li nga xam ne moo di amnistie muy nag kon ñeenteelu loi bi nga xamante ni kon ci table député yi teg nañ ko fa ñu fàttaliku nag ne Sénégal xel dem ci Mamadou Dia bokk na ci ñi wàllum politique ñi mbir mi mujj njëkk kon daal di laaleel ci li nga xam ne moo di loi d'amnistie boobee dañ ci ànd ak Sambou gi président Côte bi ñu defal ab gëstu. amnistie mooy effacement lépp lu jëm ci wàllu euh, kon yenn ci ay condamnation yi nga xamante ne ngi casier judiciaire manam gak gak gàkk yoo xamante ne dañoo nek dañ ko nemmeeku ci sa casier judiciaire nga defoon ay ñaawteef loolu yëpp nag kon moi dindi ko ba mu set wecc loolu mooy loi amnistie loi amnistie boobule ci ap euh, kon décision spéciale jarale ko ci assemblée nationale la koy amal muy décision boo xamante da fay tax kon ñepp ñi nga xamante ne dañoo ci diir li nga xamante mom moy infraction yi loi bi diviser ngeen bok ci mu wuté lol ak li nga xamante mom moy grâce présidentielle boo xamante président mom moo koy jëggal doomu effacement bobu nak dina tax kon nga bénéficier wu lepp li nga xamante mom moy ci say droit moy acte yo dana ko defon, te mu nekkoon ci sa casier. bu fekkee bu fekkente ne da nga bokk ci euh, lii nga xamante ni moom la ñu visé ci loi bi yow da ngay bokk ci li nga xamante ni moom mooy ñu ñu amnistier kon yow da ngay nekk koo xamante ne kon da nga set wicc ci Sénégal amnistie ci article 67 fii ci Sénégal constitution moom moo ko jagleel ci article 67 muy wax nii kon képp koo xamante ne da nga def ay ñaawte ci diir gi nga xamante ne def nañ ko kon yow jéggal nañ la képp koo xamante tamit yaa ngi ci diggante boobule te ñu ngi lay atte yow tamit bokk nga ca bu fekkente ne tamit dañ la atte ba noppi te ñu daan la ay daan yow tamit dañ dañ cee bokk delete président Macky Sall ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci septembre deux mille vingt quatre la euh, dina tandi woon ci ay kaddu jëmale ci wàllu li nga xamante ne moom mooy loi amnistie ginnaaw conseil des ministres mu daal di wax ki nga xamante ne moom mooy professeur Ismaïla Madior Fall nekkoon jëwriñ jër wàllu yoon maanaam ministre de garde des sceaux ngir mu examine xalaat bu baax a baax naka la ak euh, kañ la ñuy mën a woote li nga xamante ne moom mooy loi amnistie bile ngir rek jéggal ñi nga xamante ne dañoo amatul droit de vote xel yëpp nag demoon ci Karim wadd ak ki nga xamante ne moom mooy xalifa Sall waaye tey jilee dafa mel nii dafa jéggi ñooñu le di laal ñeneen ñoo xamante ne daanaka am na fi ndax mu ngi wax ci li nga xamante ne moom mooy jubale sénégalais yi. loi amnistie bi mooy quatrième bu fekkente ne jàll na ci assemblée nationale ndax Mamadou Dia moom mooy homme public bu njëkk bi nga xamante ne loi amnistie moom moo ko seetal qui marche 474 ci le Mamadou Dia de dépôt Sédar Senghor d'Adiko gracier waaye mu teg ci leneen mooy li nga xamante à amnistie ndax ci 1976 ginnaaw kon benn weer mo desoon ngir rek taxawal li nga xamantene ne di multipartisme filé ci Sénégal ci lañ koy euh, amnistier mom Mamadou Dia ci 1991 benen amnistie nous na Sénégal ci assemblée nationale jaaré ko foofule moy ginaaw accord nga xamantene amon nañ ko digël rebelle yi diggante rebelle yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy combattant yi ñuy daddi kon woote loi bi ngir rek jéggal ñëpp ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ay combattant nekkoon ay rebelle ba tax na loi boobu ñu daddi ko daddi woote kon le premier août ba jàpp 1er euh, août 1987 1er juin 1991 képp koo xamante ne da nga laale woon ci mbir mi lay nga nekk biir réew mi wala nekk bitim réew daanaka dañ la ko doon de jéggal nañ la loi bi moom moo fi jaar ñi gënoon ko xam ci nga xamante ne moom mooy mbirum Casamance. Assemblée nationale bu Sénégal adopté na juróom-ñaari fan ci janvier 2002 beneen loi bii ni ñu duppee ko loi Ezzan mu ba taxoon kon mu jéggal ñi nga xamantene dañoo defoon ay ñaawteef ci 1er janvier 1983 jàpp 31 décembre 2004 infraction criminelle yooyu le wala correctionnel ñëpp euh, képp koo xam ne defoon nga ci di di ci diggante googule kon jéggal nañ la waaye xel yëpp demoon ci ñi nga xamantene dañoo boomoon kii di maître Babacar sey ñu gënoon ko xam ci loi Ezzan moom Babacar Seye a nit ñoo armé wu kon daal di ko boom ci biir ndakaaru ginnaaw ay waxtu moo desoon ngir rek mu joxe li amante ne moom mooy li di résultat présidentiel Abdoulaye Wade ak ay ñoñam ñu jàppoon lañ leen moom Abdoulaye Wade nag ñu bàyyi ko woon ñu ne ko defoo dara waaye ñu jàpp ñeneen ñi bokk na ci Amadou Clédor Sène ci atum 1994 Assane Diop ñoom ñi condamné woon leen lu toll ci ñaar fukki fa at ci kaso yoo xamante ne ay travaux forcés la ñetteel ba di Pape Ibrahima Jaxate moom tamit kon dam ne koon fukki at ak juróom ñett yoo xamante ne da koy tëdd ca kaso ba waaye loi boobule moo ñëw daal di leen li setal bii mooy quatrième loi boo xamante ne ñu ngi koy woote fii ci Sénégal Macky Sall président ba nee na li mu bëgg mooy euh, kon réconcilier Sénégalais yi ak léegi li nga xamante ne moo doon gàkk-gàkk ñu daal di ko dindi file ci lu jëm ci wàllu ñaawteef ba tax na ñu jàpp ne jamono jooju ci atum mille vingt et un ba ba tey jile am na ñu bëri ñoo xamante ne daanu nañu ñu boom leen kan moo leen boom xamuñu ko waaye tey jile ñooñu bëggoon nañ xam dëgg bi. ndaxte ñu ci bëri dañu doon manifester jëm ci walu élection présidentielle yi nga xamante ne nañ ko dimanche 25 février 2024 té antuwul la. cant ngërëm ñeel ko moom président Sambou Biagui mo ñu doon gëstu lu mel sax ci waxtaan wi ñi ngi fi ak ki nga xanti modi moo di Seydi Gassama bu Amnesty International monsieur Gassama ñi ngi lay dalal de nuyu bu baax. waaw ma ngi lay fay di content ci invitation bi. dina ñëw ci yow euh, kanam tuuti euh, ci njeexantal li euh, ñaareelu xaaj bi waxtaan ak yow ci yëm ci wàllu am si boobee ak it lenn liñ ci mën a jukki incha allah lay doon xibaar yi ni ko waxee léegi bokk na ba tey ci sax amnistie boobee ma nga soxe ko ci dialogue bi njiitu président de la république woote woon ca fële ca jàppale ne ba tey àlang ne selaw France daal di xëddan xamee gus appe appeesu élection yi kañ lay doon donte am na lees di ruumandaat ci date ndax njiitu mi xamante fa mooy laata ñuy dugg ci wàllum nawet bi ñu naka lañ ko Ba am na ci dajal ñu ko. dialogue national bi door na ni ki démb ñaar fukki fan ak ci février bi ñu nekk ki ko jiite nag di njiitum président de la république Macky Sall moom mile yéy na jëmale ci lépp li nga xamante ne laalee nag jongante présidentielle yi ci loolu xamle na su amee lu gënal yi lay jongante présidentiel, dina am ñuy dugg ci nawet bi jiital intérêt réew mi président bu nekkul candidat newul damay toog bëgguma sax fekkee élection fekkee dëgg lañuy wax waaye nag réew mi mënuñ ko sànni foog ñu xool nuñ koy doxalee dañu dem ci élection fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam loolu mooy li ñu fi indi loolu nag kuñ ci woo nga ne yow ñëwuloo te loolu sa mbiru bopp la bu leen foog moom ne man ngeen ko def daf ñu ko président de ku ne du ma ñëw waxtaan ci sa bopp nga ko def président def na li mu war a def ku ko bëgg loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak jalo bi suñu dialogué ba pare. ba tey mu ngi wéy di xamle ne yile élection ngir mu am faw waxtaan ak déggoo am ba noppi te moom mi sax dina daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk conseil constitutionnel bi ngir ñoom itam ñu mën a jël seen responsabilité ba tey moom njiitum réew mi mu ngi wéy di xamle ne su déggoo amul fekk mandaawam di jeex maanaam fii ak ñaari fan ci weerub avril dina rek daal di bàyyi ñi ŋànk conseil constitutionnel bi mu tànn ki nga xamante ne moo koy wuutu. réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ne fii jàmm rek moo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su paree ñu taataan jël synthèse yi jébbal ko président de la république mu doog mën a jël décret bi fixé date bi ne bës nangam la

te mooy njëriñu askan wi kon lii moo doon kaddu ubbi gi mu bëggoon ubbi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàllu ak ñëpp jërë ngeen jëf mangook jërëjëf Aïssatou Ba xibaar yi ba tey sax ci jamono jooje bokk leen ne église bi ñoom yëkkat nañ seen i kàddu ca ndajemu ku ci mel ne Philippe Abraham Birane Tune euh, Birane Tine bokk di président bu conseil national boobe ci wàllum jàngu bi ñoom nag daal ca dialogue ba euh, daat nay euh, kon fësal ay yéeneem ginnaaw ba mu fa teewalee l'église bi di waa jàngu bi ginnaaw ba mu rafetloo ndaje mi terewul tamit ay kàddu moom fàttewu ko fa mu jugee ndax it am na lu mu jukki ci loo xamante ni te la ñuy wax dëgg-dëgg maanaam bu sañoon dañuy wéyalaat lii di processus électoral bi bañ ca an lenn lu ñu indi ci lënt-lënt wala bokk lu gàll góose rawatina sax amal euh, jongante yi laata 2 avril euh, bokk na ci xemmem teefam ay kàddoom euh, dañ koy teelu ak sunu naataango Alima Ngassa le premier point c'est le respect de nos institutions. waaw man damay ñaax ñi di acteurs politiques yi. ñu respecté bu baax li nga xamante ne mooy suñu institution yi. ndax xam ngeen ne loolu am solo la ci réew. may ñaax tamit ñu wéyal li nga xamante ne processus électoral ma fàttali leen ne ci lu yàggu dara Sénégal bokkoon na si jongante Coupe d'Afrique mu amoon erreur bu fa amoon ñu jàpp ne Sénégal dañu ko éliminer ah, injustement te arbitre demut xool lii di va te terewut Coupe d'Afrique bi mu ngoon continuer di wéy kon nag bu fekkee jàpp nañu rëq-rëq am ci processus électoral bi mun nañ ko continuer ay waxtaan continuer waxtaan yooyu ba élection mun a am ci jàmm ak salaam man daal dama gis ne loolu mooy li ëpp solo di woo daal acteur politique ñu jiital njëriñu Sénégal ak njëriñu askan wi may nag jaajafal njiitu réew mi ci li nga xamante ne jël na ndogal woote dialogue bi ñu mun a waxtaanee loo xam ne mun a indi daal bu ñu mun a tëgg élection yoo xam ne yu leer lay doon ki war a gañ a gañe ki war a félicité félicité avant le 2 avril 2024 ci jongante yooyu sax mu mel ne dafa am ay kàddu yu ci wuute ci li nga xam ne moo di kon dialogue boobee Amadou Ba ak Boun Abdallah Dionne ñoom di ñaari candidat yi nga xam ne bokk nañ ci ñi ñi teewee dialogue boobee ñoom nag fekk si nañ fukk ak juróom-benn yeneen yi nga xamante daal bu ñu sañoon élection yi dañ koy amal euh, ci anam gi nga xam nag moom moo di euh, niñ ko euh, tabe woon ci ñi ñu retenir maanaam bokk na ci nag yeneen ci ñi nga xam ne dañu leen a recalé ak ay spolié ñu duppee seen bopp maanaam ñi ñu foqate seen xëy na ak ak ñoom nag daal jàpp jàpp nañ ne buñ sañoon ñu daal di gisaat euh, xolaat processus maanaam dooraat bi lépp jaaree ko Paline di processus électoral bi muy kon ay gis-gis yu waroo ci boobu lépp ndaje Abdoulaye Dieye ci leeral. coow la ñu nemmeeku ci wuteb dialogue national bi diggante ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy candidat yi conseil constitutionnel daal di valider seen candidature ak ñi nga xamante ne ni ñoom la daal di recalé woon ñu dippee leen ay candidats spoliés jëm ci tànneefu date gi ñor a amal lii di élection bi ak ñaari candidat yi lay di Amadou Ba ak Boun Abdallah Dionne bokk ci ñi conseil constitutionnel daal di nangu woon seen parrainage ñom daal di xam leen ni seen bëbét ak bëgg-bëgg mooy ñu daal di fexe wëyal li de processus bi daal di amal li de élection bi ci ni mu gën a gaawee ni koy conseil constitutionnel daal di sàkko yi la xalaat wuteeg lool ak ñi dippee candidat yu kale yi bokkoon ali ah mi ngi foofu seen bëgg-bëgg wute lool ak ñi lé mooy élément dem conseil bi jaaltoon quoi dana woon bu journal Uray bu paré ñu annoncé ko avant 21 une heures processus bi mooy élément conseil bi ay rëq-rëq yu bari lool conseil constitutionnel dem lool mi ngi foofu su ma juumul ci parrainage yi ba bokkuñu élection yi. moom ah, bu journal bi jeexee. waaye tamit candidat recalé Cheikh Abdou Bara doli Mbacké. waaw non boobu vingt heures lay am di xam ne lii élément ki leen gudd de huit minutes la xam ñu mën a def ba daal di tàmbaliwaat bi le processus mu toftal ci ay kàddoom di wax rek ni bu ñu daal di dajalee ñoom la ñu am ci ay parrainage toll na ci ñaari junni million doon rek tontu gu muy indi ci ñi xam le ni ñoom ñi le matuñu dara ci élection yi waaye nag lu lees mën a wax faw ñu nangu ni xel mënta jàpp ñaar rax ci dolli tànk bi moom faw ñu bank ko mbaa ñu tàllal ko ma nga ko Abdoulaye Dieye sax bi lépp euh, ndaje di jaloog ndax am na njëriñam déet askan bu Sénégal wala bokk ñenn ñi nga xamante ni am nañu gis-gis ci wàllum politique ñoom daal gisuñ ca njariñ jàpp nañ ne daanaka amul benn euh, solo leeral yi ak sunu euh, jigéen Ndéla Ndiaye ci reportage xamante ne kii di njiitum réew mi président Macky Sall woote na ko foofee ca Diamniadio daal dinay jur ay ñàkk déggoo ci ñi sekk langum politique bi ndaxte bu sukkandikoo si ñooñee sax kii di président Macky Sall si ay caaxaan képp la daal di sukkandiku ngir mën a amal jaloogam am boobee. waaw li mën a wax rek mooy lii nga xam ne moom moo xew daanaka du dialogue si dialogue dafay laaj nga toog ak ñoo xam ne bokkuñ xel ak yow ngeen di waxtaan benn wa dialogue bo xamne ñi nga wo wala bok ñi la wuyu ñoom ñepp ci wara ñi bok lo wax rek ñu tacc n'est-ce pas ñoom tam lu wax rek nga tacc reetaan lu je crois que du dialogue li nga xamne mo mo xew jam ñaaju jooju yàq lu rew mi la waaye du dialogue. comme que nak ñak déggoo amna ci digënté ñi nga xamantene ñoy rekalé yi ak candidat retenu yi fan lañu dialogue bobé bëgg yobé dialogue bi amul benn importance parce que Macky moom li moo bëgg a def def na ko décidé na ko ba pare moo tax euh, c'est une très bonne décision de boycotter n'est-ce pas mu tuumaranke fa moom ak ñi nga xam ne moom la ñoom lu muy indi mooy dafay niilal affaire day beneen ne dara xew fi n'est-ce pas Sénégal yi dafa mel ni kenn deewut ci manifestation yi loolu jublu moo tax ñun ñu ngi ko ñaaw lu baax a baax. évidemment mu ngi koy jéem a jaay askan wi di naan woy dafa bëgg n'est-ce pas daal am ci daal am ci biir réew mi. mais su bëggee daan am na ci biir yi mën na bàyyi ñu mu tey ci biir kaso te ñooñu mën na leen bàyyi sans que mu soxla loi d'amnistie. dialogue bi nga xam ne jur na ay ñagas-ñagas ba noppi ku si nekk si ñoom mu ngi daal di ñoddi di jëmale si boppam est-ce que buñ si teelu jukk wut solution suñu réew mi di Sénégal du daal di dugg si guuta sànq sax dañu ñëw ci moom bu ñu rek jukkee élément bi jëm ci wàllum kon soxal gaz bi nga xamante ni daan nay gis nañ ne jafe-jafe la daanaka doom bu góor la jamono ji jigéen ñi ñu ngi daw ba sonn mun ñoo fexe ba amub gaz lan moo waral lu mel en tout cas ñu ci mel ni ñu ci ëpp daal ci ñoom euh, ñu ngi bëgg a dem laa bi sina tuskare ñeel na leen ndax nag ñu ngi xëy suba ba ngoon di wër ngir am euh, lu ñu toggee dañ ci ànd ak leeral yi ak sunu ndaw di ki di am setu gànn ngi nii ñu gis ne gaz dafa manqué ci yenn bërëb yi fii ci Dakar li ni mel daal di jur ay tolof tolof ndax ñu ñu dajal a daanaka seen kàddu yi dafa méngoo. mais gaz sa pour ko sa problème surtout weekend weekend moom doo am gaz mënta ne. lundi bi ngay mën a am gaz wala mardi te fii ñëw ñàkkuteem gaz bi nag indi na ay jafe-jafe ba tax na nag ñu bëri daal di delluwaat ci këriñ bi ndax ñoom jàpp nañ ne loolu kese moo fi sës. maa ngi jógee Arafat ba Liberté 6 di wut gaz dañu wut gaz nag ba sonn dépp bu dem gaz amoon li dafa métti trop depuis. ñaata weer je ne sais ay semaine waa semaine laa mën a parce que dañuy togg nii toggee ci ay fourneau li ñuy jëndee ay këriñ pour toggee sax loolu dafay ëpp ji gaz bi sax dafa mit te tamit dañuy wër ba sonn dañuy dem ay parcelle bu ñu nee parcelle am na ñu dem foofu bi am na dañuy jàppante ba sonn dafa métti. waaye joytu bi nga xamante ni ñu ñàkk gaz ñu ngi koy joytu daanaka nag ñu dëkkee ci wetu dépôt de gaz bu nekk Liberté 6 ñoom yëguñu ko. ah dëgg yàlla man de moom manqué wu ma gaz moom maa ngi sant yàlla ndax maa ngi ñëw ma dëkk. tout le temps oto oto gaz bu ñëwee rek man damay profité ma dem jënd gaz wax yàlla man moom chaque instant bu ñëwee rek man damay profité ma ma dem jënd gaz waaye waaye waaye gis naa nag gars yi nag ñu ngi rang nag dañuy ñëw heure bu nekk ñu ñëw fajar gi dañuy ñëw guddi gi heure bu nekk daal gars yi dañuy ñëw wa wante gaz yi moom mi ngi ñëw moom xëy na bariwul waaye mi ngi ñëw ñàkkuteem gaz bi nekk na ab situation bu doy waar bi nga xamante ne rek foo ko nattu weesu na ko. jërëjëf am Amsatou Gano jombul ne yóbbaale nga gaz sa kër ngir nga mën a am loo toggee euh, ñu ngi ci plateau bi ak sunu gan euh, Seydi Gassama maa ngi koy dalal sànq ñu ngi lay nuyuwaat baax a baax. maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu képp ku seetaan euh, DTV. jombul ne am nga gaz yow. ah bi ma jógee kër ga rek gaz amuloon <laughs> gaz amuloon ñu ngi doon wër gaz man mii. Eh, dugg naa oto di wuri gaz. Hmm? Eh, war naa gaz fu nekk. Hmm. Eh, dem sama kër goro jël fa hmm. gaz bi nga xam ne moom la yoroon ci biir këram. ah sa kër goro nga dem jëli gaz bi. waaw parce que amoon gaz feneen. <laughs> et donc comme comme amoon na ñaar mu amoon ñu benn. loolu mooy wane ni vraiment gaz dafa ñekkoon ci biir dëkk bi. waaw ndax dem naa ba terminus liberté 6. nga jàpp ne lan moo ko waral situation boobu. man kenn xamul explication bi. parce que gaz besoin naturel la gaz non seulement waruñu ko manquer parce que en milieu urbain mhm. euh dañ ko soxla euh, gaz dafa war non seulement nekk disponible dafa war yomb mhm. pour que ñuy bàyyi di jëfandiku këriñ mhm. parce que këriñ mom li muy andi moy déboisement hein ah, so demee côté Tamba Kédougou àll bi yëpp gor nañ ko pour euh, manam lakk euh, këriñ moo gaz dafa war a nekk disponible dafa war a dafa war a yomb tamit pour que nit ñi bay këriñ bi. Mm-hmm. surtout comme mu manqué ci jamono bu ñu naan Sénégal ñu ngi jëm ci ay ressources naturelles. voilà c' est ça c' est ah. ça donc euh, mm-hmm. lu doy waar la. am na solo li waral sa teewaay fii mooy yaa ngi ci Amnesty International ñu xàmmee la ci nga cee kilifa gu mag jamono ji li nga xam te moo nekk ci bërëbu waxtaanukaay yi jóge démb ci dialogue bi mooy loi d'amnistie lu ko jiitu sax ñu ngi ko doon junj euh, ak njiitu réew mi euh, nga am ci ban jàngat. waaw loi d'amnistie moom ñun fu ñu ko tuddee rek. Mm-hmm. dañuy jëkk taxaw tem pour xeex ko. Mhm. du Sénégal rek. Mhm. donc euh, fu ñu ko tudd ci biir àdduna rek. Mhm. dañ koy xeex même si la ñun amnistie la ñu tudd. waaye am amnistie moom ñun nangu nañu ko. su dee euh, dafa ñëw après la vérité des faits. maanaam mun nañu atte nit ki bi pare. suñ ko atte ba pare ñu xam ku nekk li nga def. n'est-ce pas booba mun na jël droit d'amnistie. Euh, baale waaye jël droit d'amnistie boo xam ne dina tax ba dëgg du mun a feeñ. maanaam duñ mun a enquête. di mun topp ay nit xam ku def ku deful ci ñaaw ñaawteef yoo xam ne yu garaaw la comme jël bakkanu doomu aadama amnistie boobu dañ koy bañ. Mhm. donc euh, te li nga xam ne moom président jublu ci loi am bi euh, mooy fexe ba euh, lépp lu xam ne xewoon na ci yëngu-yëngu diggante mars deux mille vingt un ak deux mille vingt ñu mun ko dal daldi ko effacer. Mhm. parce que loolu la rek effacer la. Mhm. fexe ba maanaam dootuñu topp kenn. koo xam dañu la amnistie ci ay fait. tout de fait, c'est mon gros topion. Comprendre. mon ce mot bon qui s'est fait là, n'est-ce pas? Besoin qu'on amnésie, que pour amener à mon tout doux, mon autre topion. C'est fait, n'existe plus. Donc, moi, je ne connais pas le parce que du mois de mars 2021 à 2024, il a quand même euh, le mode du rond ben fouque dans le Sénégal. Il y a quand même une bagarre amna na ay téeméeri téeméeri nit xam dañ leen japp yóbbu ci ay commissariat brigade de gendarmerie mhm. ñu torturer leen fofu. wala bok ci biir euh, voiture de police wala gendarmerie yi leen doon yobu ci brigade yi mhm. ak ci commissariat dañ leen torturer ci biir brigade yoyu mhm. ñooñu yëpp n'est-ce pas ñu bari ci ñoom am nañu ay gaañu gaañu ñi bété ñu ngi dem ci psychologue yi dem ci ñi faj bop n'est-ce pas di faju n'est-ce pas ñooñu yëpp ils ont le droit à la justice kon loi d'amnistie bi loi bu bon la loi la boo xam ne intérêt wu classe dirigeante bi rek lay protéger. Mhm. ni ko dictateurs yi adopté woon en Amérique latine. Mhm. pour protéger seen bopp bala ñu joxe réew mi ay civil. Mhm. Macky Sall noonu la noonu la bëggee def. maanaam def na ay ñaawteef pendant douze ans def na ay ñaawteef. Macky Sall duñu fi jàmm. Macky Sall duñu fi jàmm Macky bi mu toogee ba léegi. <laughs> noot ak toroxal. waa kujje gi rek la fi nekkee. ñëpp xam ne Karim Wade lu taxoon mu topp ko. du woon affaire luubal alal réew mi. Mhm. daf ko toppoon rek parce que dafa yaakaar ni Karim am na alal. Mhm. te papam mu ngi woon fii. Eh, amoon na évidemment kattan du du nu mu mel ni léegi mun na ko jàppale ci campagne te mun nekk dans ci moom. Mhm. mu topp mu topp Karim ñi ci des ci PDS ñoom yëpp ñu transhumé eh, dem conseil des ministres ñi dem ci groupe parlementaire am nest pas. mu daal di mu daal mu daal di arrêter les poursuites pour euh, la traque des biens mal acquis. Khalifa noonu. Ousmane Sonko noonu affaire Adji Sarr xam xamoon nañu affaire boobu. mais dara ne ko ci. Eh, gynécologue bi wax na ko. capitaine Touré wax na ko. mais daf ko topp parce que dafa bëggoon noot Ousmane Sonko. Euh, Ousmane Sonko nag yàlla def mu am la ma mbooloo. ay xale xale yi nag xeex. xeex nag xeex boobu nag moo moo tax ba mu reculer tey bàyyi trois faire troisième mandat. te xeex boobu moo moo continuer ba tey moom ak Ousmane Sonko. kon du nitu jàmm parce que nit la boo xam ne bi mu ñëwee léegi fitnal. kuje gi la fitnal journaliste yi la fitnal société civile la moom la fi nekk ba léegi loi d'amnistie bi daf ko jël rek pour porter ses arrières. xanaa kon fexe ba moom ak ñi ñoo doon ànd def répression bi n'est-ce pas ñu bàyyi leen topp ëllëg. waaye loi d'amnistie moom foo ko déggee rek am na loi ban mun na ko dindi. kon da ngay partagé maanaam bokk gis-gis ki nga xam te ne moom moo di Civil. ci seen communauté ah mais absolument absolument <laughs> mais ñun ñoo ko njëkk a wax sax ah njëkk ko ñaawlu njëkk ko vraiment euh, dénoncer parce mhm. que franchement loola boo xam ne impunité lay consacrer mm-hmm. impunité bo xamné ne ñak nañ seen i seen i seen i doom mm-hmm. ñàkk nañu seen baay mm-hmm. ñàkk nañu seen jëkkër déposé nañu plainte depuis 2 ou 3 ans plainte yaa ci tribunaux yi ba léegi amul ben instruction nga jé ben loi né leen seen plainte yëpp léegi amatul solo kon da ngay japp ni euh, ni ñeneen